ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point di leen toppal seen émission bi nga xamante ni moom la ñuy def ci weeru koor yi di seeti axlu kafe gi fu waay nekk rek ci kafe gi rek tubaar kàlla macha allah boo ñu woowee contacter dinañ ñëw boo ñu woowul sax dina ñëw parce que ndog yi nga xam si ni jaamu yàlla yi ak Baay Faal yi kenn ku ci nekk yaa ngi jël sa dërëm jël sa ñaq di ko def ci ndogu di ko def ci ndogo yi di fekk jaamu yàlla boo xam ci ni wor ba ngoon jot amul lu mu lekkee nga yëg sa dërëm ñaq def ci moom waaye tubaar tubaarkàlla loolu yiw la boo xam ne sunu borom da koy ful da koy da koy doublé mbokk yi di ànd ak yéen ak leeral TV leeral point di gërëm di gërëm di sant su may xarit bu baax a baax di leen ñaanal sunu borom defal leen jàmm daas tuus suma xarit la ah suma lonko la maa ngi leen di gërëm bu baax a baax mbokk yi ñu ànd ak yirim bu jàmm gën jëli moor pimpi waaye tamit waxtaan seeg ñeneen ñoo xam ci ni ci làmb la ñu bokk waaye tamit ci diggante komba ak bi nga xam ne dox na Siteu ak ki nga xam ci ni moom mooy mooduloo Lo euh, ak weeru koor waaye pimpi ak làmb ji nga xam ni ci lañ bëgg a jëm muy diggante ki nga xam ni moom mooy Modou Lo loolu yëpp mbokk yi dinañ ko waxtaanee waaye pimpi ñoo ngi lay nuyu. di la fay Fallou. di la bëggee. di leen nuyu yéen ñëpp barki Serigne Touba di ziar ñëpp di balu àq ñëpp danañ saa borom boole jégal ñun ñëpp ba Serigne Touba. pimpi yaa ngi wor wala wor non man Baye Fall laa man lu julli ma wóor. lu tax. waaw askanu Cheikh Ibrahima moo tax. mosoo ci wóor benn fan. ma juddoo ba léegi mosuma ko def barki maam Modou Moussa Fall waaw nekkuma si sax ndax fi ñu gëm la quoi. ak fuñ jog moo tax mënuñu julli mënuñu woor ñun suñu lépp Cheikh Ibra la lu ñu am Cheikh Ibra la lu ñu ñàkk Cheikh Ibra la waaw suñu kanam ak ginaaw ginnaaw ñun suñu lépp Cheikh Ibra Fall la waaw ñun moom Cheikh Ibra Fall kan ko dañ si juddu moo tax dañoo nàmp si meen mi. ana Siteu. meen mi waaw mu ngi fi mu ngi si jàmm mhm, mu ngi si jàmm mu ngi si jàmm bu wér a wér sax ba sant waa. ba nga déggee combat Modou Lo Siteu taxaw na. lan nga jëkk a xalaat. dama xol daa seetu guy dama bëgg gën a waaw xol bu sedd loolu dara suñun barke Serigne Touba dama gën a bëgg xam ni nag buntu baa ngi doog a waaw Modou Lo Siteu dama ko yàgg a rêvé man sama àdduna dama ko yàgg a rêvé di ko ñaan suñu borom di ko dagaan sax suñu fàllu kon am nañ ko damay jël damay gën a dolli suñ. sant suñu fàllu rek barke Cheikh Ibrahima waaw. Siteu jël na Modou mais risque yi bari na commentaire yi bari na Siteu warut jël Modou Lo wala Modou Lo warut a bëri parce que Siteu amul kattan gu mën a daan Modou Lo wala tamit amul bëri bu mën a daan Modou Lo loolu ba nga ko déggee ci commentaire yi ak ñi ne làmb ji combine combine la combine lañ ko daan. loolu ay ree ma def ñuy wax loolu ñoom dañoo xamul booy bi ñun ñoo xam ne booy bi suñu loxo la juddoo xam nañ li ma leen waxoon démb ak démb ak bërkaati démb laa leen di waxaat booy bi nekkul mbër bu ñu wutal yoon dafa rampe ba egg seen kaw dafa wër bëreeg ñoom ñu bàyyiwuñ fi benn mbër yàgg naa leen ko wax saako xaaj bu duggee ci kër gi ñu jëlee ko café Touba jox ko Baye Fall ku taxaw ñu bër ak yow ñu may wax ay waxul ñuy commentaire ñoom ñooy commentaire loolu ñoom seen xam-xam la ñuy wax seen gis-gis ñun booy bi ñi nga xam ne ñun ñoom ñun ñun ñooy ànd moom ñun boo xam ndey nañ bu baax fi ñu àndal ñoom dañoo xam booy bi ñoom. ñoo ñuy wax ñuy wax ku siy wax rek xam na xamul booy bi man ku siy wax loo xam si nii logique suma ma ko déggee damay xam ne kii xam na booye bi mais ku si wax ay naxasaxa naan du ma la sax déglu. ñan nga jàpp ne ñoo ciy wax ay ay loo xam si yéenewul maanaam ci combat bi ñan ñan. bari na bari na ba si làmbu log boobu noonu doon wax kooku li muy wax xamul Siteu mu yor làmmiñam boobu di wax di mbaraj mbaraj yi na ko pim mooy wax. moom dafa xam booy way wax si booy bi ah ñoom kañ lañ xam làmb ñoom ñun bañ juddoo ba léegi ñu ngi dund làmb moom mu bëgg taxaw fii di wax ay booy bi day bëreeg ñëpp bàyyi fi benn mbër. nga ne ma ne benn mbër laa la wax buy ngemb soo bëggee dégg dem man pimbi maa wax man maa wax. waaw ah, yow dof bee wax. waaw bàyyi fi kenn A ba Z ñun ku taxaw suñu kanam dañuy bëreeg yow fële la jàll may ñu jàll. dafa am lu ñu soxla dañ koy jëlee dafa ne suñu loxo dañ ko gëm. Siteu yow xam nga ne Siteu yow du mbër bu ñuy. mais jàpp nga bel roi des arènes ci ay wax la. waaw yow xanaa yow xam nga fan joge waaw moo gën a métti. mbapatu booy bi xanaa seetaanoo ko. ñun ñoo xam ne seetaanu. waaw ñun si coow lañ judd. ñun xalima coow la ñu bindoo la coow ñuy gën a sori. ndax ngeen judd ci coow. waaw Serigne Touba ma loolu xalima coow lañ si judd dañ si juddu xalima coow la ñu bindee looy coow coow ñuy gën a sori ñu ragaluñ si dara ma ne la mbër bu ngeen ngemb bu ne bu ñëwee ñu bëre barki Serigne Touba Khadim Rasoul. mais Modou Lo c'est le roi des arènes. ay eh, déggoo ñu ko gën a ci le meilleur. ñu ko gën a pare jaar nañ fi ñun fi jaar moo gën a métti jógee fu garaaw lañ jógee di màgg di jugaale moom ba egg seen kaw na xës seen kaw kon ñoom lan moo fa des falu ma laaj la loolu yow ban mbër lañ fi deseel. laata gerte gi nii barki démb laa ko jàpp faqar ko mu rëpp di ram dax ko mu génne saako yi ñaari yoon ak punkal laayam kooku ëpp Modou Lo fop bàyyiwuma ko sax xel nga may waxu Modou Lo ne ko mu bëree ñun ko commune ñu moom loolu la wax de Modou Lo laa lay nga waxoon ne ko pim bi mooy wax nii borom jàmm gën si kàmm. Modou Lo kay nee na moom combat bi jël na avance boo xam si ni lekk na coow moom wax na ko. waaw déggoo bu ko waaj laaje wax na ko nen ko man am naa lu doy mbubu ak nañ caay sax silib bay wéy waxal loolu nee na moom am na lu toll mu bëgg tubéy naka gars yi romb nañ caaye bay wéy. mais Modou Lo lim fi def Ama Baldé lim fi def Boy ñaa mais mbaa loolu du leen ko def. non non ñun yow ñooñu la koy def ñooñu la dajal woon leen ko ñun Modou ñu ko gën a pare dajal nañ ak ñoom barki Serigne Touba Xaadim Rasul ñun loolu. barki maam jaara buso laa lay wax nii ku dul Modou Lo jaar na fi ñu gën a pare Modou Lo jaar nañ fi te liñ daj lay daj. mais kattan gi kattan gi war a daan Modou Lo. waaw léegi yow booy bi fan la jógee yow baa fu mu egg si fii am doole moo ko waral barki Serigne Touba Mbacke yow koo xam nag na nga ëpp maa la doole maa la ëpp doole bu ngeen dajee nga nga taxaw déglu ko loolu dafa saf. mais Alamar Alamar kaay Alamar dama koy nuyu kaay Alamar Alamar dafa war a ñëw wax ci combat bi. lu jës barke maam ñëpp si bokkoo ñëpp si biir mais dama la bëgg a xamoon ne la xoolal Modou Lo dañuy bëree maam moom barke maam Serap Fall ku dul moom sax dañuy bëree. Modou Lo waaw ku dul Modou Lo ku dul Modou Lo sax dañuy bëree ba am fi benn mbër Fallou Fallou naa la wax. loo takkatul téere de doo am foo jàpp de. waxoon naa leen kalan bu mag si kaw boo tas na ko bu yàgg. waxoon nga ma ko kalan bi. waaw kalan bi waxoon naa la ko de. kon yow bu reetaan war nga xam ne man du ma waxantu man xam naa li ma àndal man sama rakk ji ma àndal nii ak ma koo xam su ma ko gisul sax barki alxuraanu karim suñu gil sax dama ko xam. mais coow li ci biir làmb ji Siteu wër ta bëreeg Modou bari na coow communication yi ku nekke di wax naan Siteu wër ta bëreeg Modou Lo mais ñooñu. waaw lan moo loolu tax lan moo leen boole du làmb mais du la booy bi bëre ba egg booy bi kan la mujjee bu yoon Lac de Guiers la jógee si Lac de Guiers. loolu gis nañ fa doole de. Hmm? léegi ñoom lan lañ bëgg xanaa Modou Lo du mbër wala Modou waru warul bëri si ah, mais lamba leen boole ah te lamba boole na leen de. jàppoo ne du xaalis. déggoo lu ma man xaalis ñun si xaalis lañ judd ñun ñu romb xaalis bàyyiwuñu xel xaalis barke Serigne Bamba ngëm-ngëm lañ fi indi ak sañ-sañ. ak gëm luñ doon moo ñu yóbbu fii nii mais du xaalis du affaire u xaalis de làmba leen boole dañoo war te dañuy bëre ku dul moom sax dañuy bëre barke Serigne Bamba gars yi dañuy nelaw saa day di bëre. roi des arènes roi des arènes ku ne Modou Lo bëreeg moom nan nga war a préparer. waaw comme ni ñu daan rek xanaa dañuy gën a dolli yokku cere dolli ñax rek nii rek la demee ah. yokku cere dooli ñeex barki maam Serafal ma yow Fallou xam nga ne yow ñun jàmbagoon si kaw mbaaw ñun ragal ñu dara suñu àdduna lamb ko lamb bu na jaar nañ fi lamb bu nañ ko kon kon gars yi xam nga ne loolu gaan gars yi loolu falu Fallou ñun fi ñu jógee moo gën a métti barki Serigne Bamba Mbappé mbapat ba fii da ngay xool loolu mbapat ba fii booy bi di rampe di rampe di rampe di rampe di seeni loxo. gannaaw bi ma bi ma bi ma la bëggee di la ñaanal jàmm Thierre Mouma day ñëw ma jël ko mu wax sànni ci xalaatam moom it tamit waaye tamit di nuyu euh, caméraman bi ma àndal Yirim di ko nuyu bu baax a baax nuyul ma Yirim. waaw Yirim ñu ngi koy nuyu Yirim suñu rakka la suñu dara la suñu lépp la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay mais li ma la wax da koy dëgg na ko gars yi xel man dama ne la ñun commune ñu booy bi daa bëre ba egg si fii nii xooluñu sax loolu keneen ku dul mënoo dañuy bëre ak moom coow li moom bëreegul sax baal bañ wari. nga de. coow li bëreegul de baal bañ wari di nga xam ne ñoo mën ñoo. après koor gi. barki Serigne Bamba Mbacke ñoo mën ñoo doole ñoo gën a féetee xale. nga ne après koor gi. waaye ñoo mën ñoo doole ñoo gën a féetee xale bu dee lamb fii la fekk bu baax Modou Lo lambagul sax mu ngi doog mu lamb. lii maa la ko wax seetlu lii. ki bëreeg Balla Gaye coow loolu bëreeg Ama Baldé coow loolu Boy Niang mu dal si Siteu. léegi xam nga la ngay xel maa la koy wax nii. premier combat Balla Gaye ak Modou Lo bi ñu njëkk a daje combat boobu moo dekk war nii. jërëjëf ñu lay sant bu baax. noonu la demee nag dañuy lambu ku ñuy jàppale nañuy jàppale si lambu barke maam Cheikh Ibrahima Fall lamb ku ñu jàppale ku ne nañuy jàppale si lambu. waaw ak di bàyyi xel new ñu doole yi nag da jaamu yàlla yi bàyyi xel néew ñu doole yi di leen dimbali barki Serigne Touba Mbacke li ma leen di ñaan ni moom na ko yi def ñi nga xam ne ñoom ñoo tane nañuy dimbali ji waaye néew ñu doole ji war na Serigne Touba lii ma lay ñaan nag dama koy ñaan quoi lii état bi laa koy ñaan ñi nekk si kaso bi ndeysaan war na Serigne Bamba te seen loxo juru seen mbagg nañ bàyyi xel ñooñu état bi nañ dimbali tout tànk yooyu ne si kaso bi. xanaa dañoo ñuy dund lu métti dañ ñoo ñooñu waaye bàyyi jaamu yàlla yëpp barke sëñ Bamba gars yi seeti leneen war na sëriñ Touba te bu ñu defee loolu suñu borom dinañu dimbali. lan moo xew ci biir kaso bi. waaw kaso bi mooy li ma la rek barke sëriñ Touba ay doomu jàmbur ñoo fa nekk ñoo xam ne waaye xale yu ndaw ay mineur ñu ay innocent bàyyi ñu leen si jël bi ñaata at nañ leen dimbali bàyyi leen gars yi dem nekk si leneen war na sëriñ Touba Mbacke loolu la ñaan nañ leen dimbali bàyyi li leen di wax ni dëgg la war na Serigne Touba ku si tegul sa bët xamoo mais nañ dimbali ñooñu wax leen ko état bi ñu ñaan ñu dimbali loolu noonu bàyyi jaamu yàlla yi barki Serigne Touba ñu ngi bàyyi sax de mais bu gën a bar day baax barki Cheikhul Khadim mbokku taalibe yi ne si biir nañ leen dimbali bàyyi lii mën maa ko ñaan baay di ko wax état bi na dimbali doomu yaamar yi doomu aadama yi ne si kaso bi bàyyi war na Serigne Touba lii kese laa moom li ma leen di ñaan war na Serigne Bam di leen bëgg yéen ñëpp nag. nga xaritu Siteu maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay Mame Fallou di la ziar di dalal yow fi amul dalal sax yow fii sa kër la waaw. koor gi. waaw ñu ngi sant bu baax. yaa yaa julli di naafile ak yooyu. waaw comme ni ko doon defee at yëpp di baalu ñëpp àq si weeru gi di baal ñëpp àq ndax weeru gi ñun moom yaa naa ne mbégte nañ si duggee sax bi ñaata rakk la. naafile naafile dépendrewul ci ay rakka ndax bis bu nekk ak waaw naafile yëg-yëg la rek bu la neexee moom nga nga tàmbalee mi ba deux heures du matin julli sa safaak huit heures tëj ko yaa julli ba doyal la rek ay ngëneel la quoi. jërëjëf julli ba doyal la mënut a ñàkk ñu waxtaan ci weeru koor bi waaye tamit aaya yënga li xew muy combat Siteu la euh, Modou roi des arènes tey ba nga ko déggee lan nga yëg. waaw kon kontaan tamit te xam ne tamit lu war a mën a ne la te ndox ndox ndax loolu lañu doon ndax loolu lañ doon rêvé bëre di bëre di bëre ba egsi ci ki nga xamante ne mooy roi des arènes waaw war a moom comme comme yeneen combat yi daan jël rek mais combat bi de moom comme combat bu neex la waaw dëgg yàlla combat bu bokk na si comme combat bi mu combat royal moo tax waxati di ngeen noppi de. da ngeen di noppi tëj leen. kon gars yi dañuy wax. moo ay buuse concert googu noonu xaw ma beneen seen beneen booy waxat boobu xam nga ñoom dañoo bëgg a siiw ñoom dañoo ñeme yi waxu gars yi dañ ko ñeme trop am nañ sitam yeeg lépp waaw combat boobu noonu ñu luñ ko siy wax ci moom muy moo boo xamante ni muy wax ju vulgaire la wala dara waaw ndax kooku jokko njal quoi mais làmb la dañuy bëre dañuy bëre dañuy xeex. dañuy bëre moom dañuy xeex ak moom Modou moo la gën a xam. loolu ko xeex ak moom dem ardo de. déggoo mu la wax yow di ndaanaan ko kenn kenn waaye ndaa ndaanaan la yow. kullu mais làmb la bu arbitre bi tëjee barrière yi nga xam ni mooy loolu. làmb la bu ñu bu waaye bu ñu fonk sax onk maane nag xam naa di ngeen gën a onk. kon dafa am ñi. yee pot sàmbur bu mag ay pot sàmbur nañ commandé ci angalu jàmm gën a ñuy onk ñëpp. ku war a jaar si route nationale bi nii bu fekkee péage bi sax doo échec waaw. kon nga jàpp dafa am ñuy onk. ñoo am na ñuy onk. onk bi nu mu demee noonu dañuy siisu si combat bi di wot bëgg a bëreeg Modou bëgg loolu ki ñëpp bëgg a bëre bëreel kooku tey boo ko jëlee faaw wax ci bëri. kon de li ma jaaxal daan na Ama Baldé daan Boy Niang. waaw lamb la rek Modou Modou Modou daan na ñeneen sax ñu bokkut ak ñooñu am na mag ñi naan ko voilà dafa am ñoo xamante ni maanaam tey Sénégal léegi wax waxati dañoo bëri koo waa Modou ndaanaan la nekk ndaanaan sax moo tax mu jël Boy Niang jël si Ama jël Boy Niang soo koy ñëw jëlaat Siteu loolu day confirmer rek ba tey mais ñi naan combat boobu ay combine la moo doon am nañu am nañu wax munul doon roi de arènes ñooñu ñëpp tëj nañ seen affaire yi xanaa kon tey de bu demee ba doon roi des arènes dem ba bëri ay rakam dan daan ñenn ñi war a jë dugg si Siteu nag ah foofu nag lay dajalee. foofu ngay dajale waaye ay bukki yu mag yeg ñëpp. nga ne bukki yan. déggoo li ma la. bukki yan. garaaw nañ rafetal wax ji. waaw déet déet déet bi day am ay bukki yi ñëw wala. waaye lépp ngi si. combat royal nañ wax de booy Modou loo borom dëgg bi ki tax ki tax ki tax ay moroomam dem di defaru jiwaat. barki rasulullah ndaanaan. kon de ko lu ma ci jaaxal combat bukki yi bukki yi dañuy génn wala. non dama ni waaye loolu waxin la rek bukki yi nii loolu waxin la rek waxin la rek billaay. mais di la gërëm bu baax a baax. waaw waaw di la sant ak ak mais tamit mais tamit diñ kafe gi fii nii booy gis nga duñ koy dundee ñun ñun lii nañ xam ko waa jàmm gën fii nii ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. yenn instant nii gis nga gars bu ñu dóoree waar ba wàcc ñëw toog teg seen café ndogo ndoo fi ensemble benn heure bi ku nekk dugg sa gaale di gërëm ñëpp nag Modou di la gërëm bu baax ndax sens bi ñu yóot loxo bi ñu jox noonu mais grand du yomb de. mais mais mais ana Seck sekk coow gars yi ne nañ Seck nekkatu fi kon pour nga dugg si sita dina yomb. no loolu ñi koy yaakaar ñu koy yaakaar kat nañ xaj Siteu bi yeeg lépp fii ay adjudant chef ay lieutenant ak. ay général ak ñëpp ngi woon si ginnaaw gars yi mën nañ xool xale bi gën a ndaw jiital la ko ponkal yaa si ginnaaw de gars yi dañoo sangu rek mel nelawuñu dofte réew yi ëppal yi ñi ëppal yi rakkaajo di leen jox dig daje beneen yoon ak Leral TV Leral point net jërë ngeen jëf